naa ne tey ñaari mbir moo taxoon ñu daje benn bi ci njëkk dañuy ay ndaw dëkk Touba di taalibe Serigne Touba kon événement bu mel nii bu dee am Touba ñu faw ñu am ci taxawaay waaye événement bi nag dafay amee ci moment bu doy waar taseeg feebar bu ñu tuddee Covid 19 am jaaxal lëmb àdduna bi yëpp ñun ñi nga xamante ne si nag dañuy dëkk Touba doon ay ndaw war cee mën a am taxawaay boo xamante ne si bu am am solo jàpp naa ne tawat yi ñu tuddee Covid 19 kenn gisagul garab gu koy faj wala nga gis piqûre bu koy faj ay mesure barrière lañ teg yoo xam ne ku ci jaar di moytu feebar bi yàlla mën naa dogal nga mucc te ñu gis bi mu dugg see Sénégal premier cas importé bi am nekk Touba depuis boobu léegi muy engagement communautaire bi ñuy wax taxawaay bu am am solo bu exemplaire la ci Touba am ci loolu li ci jiitu. mooy Serigne Mountakha Bassir di xalif général de Mourides ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér am ci taxawaay boo xam ne àdduna bi yëpp dañ ko ciy roy ndax ku ne xam na ne mbas xeex ko état moo am ay moyen waaye da cee wane exemple boo xamante ne si àdduna yëpp mën nañ ci roy génne lu tolloog cent millions ci gafakaam joxe ko joxeel ko yoonu murid yëpp waaye wane ci tamit ne nañ tàmbali xeex bi te ku ne xam na ne ndaje yi daana am ci yoonu murid mu jël ci ay responsabilités ci moment yi nga xamante ne si dañ koo tere. jël ci ak responsabilité tere ko bi ñu demee ba gis na tamit président joxe ndigal ne nañ dund ak feebar bi nañ jéem a dund ak doomu jàngoro bi mu wane ci tamit matukaay yu mat sëkk muy màggal gi ñu organiser di 18 safar nga xam ne rendez la boo xam ne sénégalais ak àdduna yi yëpp xam nañ ne chaque année day am Touba te moment bi mu amee ren ku ne xam na ne jafe-jafe la sëriñ bi génn takk masque loolu nag ku di ab taalibe war nga cee mën a roy war nga cee mën a jànge kon loolu benn la ci la tax ñu ñu ñu ñu sos bisu tey bi roy ci sëriñ bi fexe ba ñi nga xam ne ay taalibe lañ te jóge faneen di ñëw di màggal si bu ñu ñëwee ni ko sëriñ bi waxee nañu wut lu toll ci juróomi million yi masque ñu ne juróomi millions yooyu ñun nañ ci participer en tant que taalibe sëriñ Touba ñun li ñu joxe toll na ci presque vingt sept mille masques vingt cinq vingt sept mille masques ak ay alcogel lim bu bëree bëri. joxe nañ ci eau de javel tamit lim bu bëree bëri te joxe googu ñu koy joxe jëm nañ ne dina àgg ci euh, askan wi ndax ay association yi nga xam ne ñoo gën a fës ci xeex mbas mi depuis mu commencé ba léegi ñoom lañ ko jox ak ñaari kuréel yoo xamante ne si ci dëkk bi lañ nekk di ay ndaw yu yëngutu di jàppale président Macky Sall te fës lool ci xeex bi ñoom lañ ko jox ñu jàppale ko kon jàpp naa ne loolu bokk na ci li tax ñu sos kuréel beneen bi ci des muy aspect politique kuréel gii li ko tax a taxawal jàpp naa ne. ñun ñi ci nekk suñu légitimité istorique ci parti bi jàpp naa ne may nañu ñu taxawal lu ñu bëgg ci biir parti bi loolu bokk na ci li tax ñu sos kuréel gi te jàpp naa ne xaar kanam yi ngeen ci gis du ñu gan ci parti bi xam nañ leen ci bi ñu toogee waxtaan ci suñu biir xaadim wax na ko léegi euh, parti bi li fi am neexul kenn président Macky Sall lépp lu baax mu indil Touba réalisation yi mu fiy def yi gën a baax la ñu indil Touba te politique li ñu jàppoon. mooy ku fi mën a nekk soo fi nekkalee askan wi di def li askan wi di bëgg li nga soxla mooy vote dinañ la ko jox te c'est tout à fait le contraire à Touba dañu gis ne malgré effort yi président di def toujours am na leneen lu am na lu lu yàq ci euh, ba duñu am résultat boobu loolu moo tax ñun nag ay ndaw lañ waaye ay mag lañ ndax depuis ñu sos parti bi ba léegi ñu ngi ci biir kon gëm naa ne loolu di metti aussi jot nañ ñu jël suñu ay responsabilité taxaw ci taxawaay boo xamante ne si dañu organiser wu xool fi yàqu-yàqu bi nekk ñu dem fekk ko fa génne ko pour mën a am résultat bi nga xam ne bi ñu sosee parti bi ba léegi ñu ngi koy wër te gëm naa ne lu mën a nekk la ndax ñii ko seq ay nit ñu am volonté la ñii ko seq ñu am gëm-gëm la te it bu doon ne terrain bu ñuy mokkal la ma ne ñoom mokkal nañ kon loolu moom moo tax ñu dajaloo taxawal kuréel gi ñu tuddee CRA di cercle de réflexion et d'action républicaine ànd xalaat bokk jëf li gën a jafe tax xam nga kuy defar fu nekk nga koy làmbe ak fu nekk nga koy wute loolu moo tax ñun bu ñu dajee def ab lël ci suñu biir durant trois semaines ñu ngi tëju di waxtaan te tey xëy na stratégie kenn du ko dévoiler ci public mais am na ay liggéeyu am solo yu ñuy liggéey boo xam ne bu ñu ci pare gëm naa ne muy président Macky Sall mi nga xam ne tey moom la yàlla dogal mu jiite réew mi jiite parti bi nga xamante ni moo nekk au pouvoir tamit dina àgg ci moom ñu wax ko. am na jafe-jafe yoo xam ne tënk nañ ko gëm nañ ne lii bokk na ci li ñu daan yàqal waaye tamit ñi nga xam ne ay responsable lañ nekk fii ci département bi plus particulièrement ci biir commune Touba dañ leen dem seeti waxtaan ak ñoom pour apporter ay solution ci problème yooyu nga xamante ne si ñoom ñoo am te gëm naa ne xam nañ ko léegi nag dafa jot ñun ay ndaw lañ te ñoom fi ñu daawul àgg ñun mën nañ faa àgg ku ne xam na ne parti bu ñu koy wax ndaw moo tax ñu ko wax te à 80 pour cent lii ñuy def ci bi gëm naa ne ñun ñii ñoo koy def nit nag soo ko responsabiliser mu yàgg di def saa su ne xam na fi dëng-dëng am xam na fi jafe-jafe di am moo tax nag ñu àgg ci phase boo xamante ne si nañ dajale suñu doole dajale suñu xalaat waxtaan ci biir parti bi xam fi jafe-jafe bi nekk ñu ànd ak ñoom mën a jëf loolu pour président bu ñu demaatee ci yeneen échéance ñu mën a am ndam yu kawe kawe. yàgg nañ ko joytu yéen ay journaliste ngeen xamante ngeen ak ñun mais bu fekkee ci wàllu mérite la ñuy wax wala vécu wala expérience ci politique. kenn jiituwu ci ndaw yi département bu Mbacké ndax macha allah ñi leen formé ci politique tamit ñu ñu baax lañ te gëm naa ne bu fekkee dañuy wax rek te yàlla tax li fi ndaw ñi di def la preuve mooy xeex bii di fi am ci mbas mi bi ñu commencé ba léegi taxawaay bi nga xamante ne si moom la ci ndaw ñi am amul kenn ku ko ci am yéen a ngi xool animation yi am ci biir parti bi yëngu-yëngu yi fiy jot a am ndaw ñi ñoom ñoo ko fi def te gëm naa ne tamit bu dee jàppale président di ko défendre ci programme am fësal bilan président Macky Sall jàpp naa ne ndaw ñoom ñoo gën a habilité pour di ko def kon nag élection bu dee ñëw jaarul na nag ñu toll foo xam ne dañoo war a xalaat nag à 80 pour cent ñoom ñoo war a représenté Touba ci biir liste yooyu ñu nekk loolu moom ku ko wax ak ku ko waxul mooy li war a am loolu nag ñun ci loolu la ñuy liggéey tey incha allah dinañ wan président ne ko ndaw ñi nga xamante ne si yàgg nañ la jàppale màgg nañ leen léegi ñun génn nañ ci COJER COJER 18 35 ans la te passé nañ âge boobu xëy na àggaguñ ci niveau yenn yenn leader yi waaye tamit ñu bëgg a nekk di d'union boo xamante ne si ci biir parti bi lépp loo xamante ne si président da ko muy la base di animation di di di vraiment di yëngal parti bi ak di fexe tamit lépp jafe-jafe bu am ci askan ni même fa gën a sori ci biir Touba ñu indil ko teg ko ci taabalu ki nga xamante ne si peut-être dina jàll ci président wala sax bu ñu mënee gis président jox ko ko loolu moom moo ñu tax a jox waaye daal gëm nañ ne ndaw ñi fi nekk nag jot nañu jël relève bi. jot na ñu jël relève bi pour assurer ko te gëm naa ne mën nañ ko te loolu ci échéance yi di ñëw ñu ngi wax président Macky Sall ak responsable yi fi nekk te ñoom loolu conscient nañ ci ndax xam nañ ne travail de terrain bi fi am ak engagement bi am ci biir ndaw ñi amul fenn te gëm nañ ne ensemble on peut relever les défis